tout le Sénégal me demande Bijou, Bijou, Bijou, Bijou. Bijou, mis à part Faramaare dafa am liggéey. Bijou sama rakk la sama deret la. par force la. daf liggéey. c'est bàyyi force. mu neex ko mu naqari ma daf may liggéey sama rakk la. maa ko yilif. donc ñi ngi may posé question Bijou dafa am beneen liggéey. Bijou. ay jëmmam sax dafa ma dépassé tey maa ngi koy dégg États-Unis suba ko lool noonu la mel donc fii la bokk jógewu fi la preuve tout chef bi ngi fii di ngeen ko gis su mel ne bés bu mag ak fu mu mën a doon jërëjëf dox si lii. lii mooy 792 mille bëgg nga wax ak gars structure bu bu bees bi taxaw. jóg pour tey aussi Abdou Aziz Aziza mooy doon suma manager Abdou Aziz maag moom ñoo bokk benn dem ñoo bokk benn nañ Abdou Aziz nekk nañ ci ruuxuwaale ba nekk ci la jër maintenant il contribue dafay contribuer ci dëkk bi développement dëkk bi parce que day fay ay employés waaw loolu du sama fierté loolu du fierté Aziz ah mais c'est une bonne ku ci nekk ci liggéey liggéey dañ ci war a gis sa bopp ba dem ba màgg ci def ci leneen créer ay yeneen Aziz il a besoin de créer d'autres Aziz def yeneen fan su ma rakk la même su fekkoon dafa am lu am c'est pas du presque la ñu taxaw di ko parce que maanaam ñu ko benn sama rakk su defee noonu dem dama koy woo corrigé ko Bijou su defee moom moo di def dama dafa ma koy woo corrigé ko Bibi Diagana man su ma def lu ma warul def dafa may woo corrigé ko parce que mooy sama ñoo bokk benn askan te il a yow ji du ñu féewul merci beaucoup